Euh, leral bu lañ ci indi bu bu ministère bi ni état du Sénégal dafa am ay charte yoon dafa état du Sénégal président de la république moy fal ci bép liggéey ci état bi Sénégal mais mom mu xamni mënul di bindal képp ci mu jël lépp recrutement ci fonction publique jël dénk ko ki ñuy wax le ministre de l'Emploi, ministre de l'emploi bobu mom kessé Sénégal wërngal kep ci gouvernement kep ko mën soxlo mom rek mo mën signer signé contrat ministre de l'Emploi, liñu def moy dañoo seetlu ministre yi fi jaar ñom ci seen bop ñoo signé ay contrat ak ay nit contrat na ku ko signé nit fay ko salaire ñoo ñoo signé contrat waaye salaire bi ministère bi amul budget pour fay ko ñu dem jël benn fonds bo xamni bi la nous ñu sàkk bob. boobu muy caisse d'avance may leeral Sénégal lan mooy caisse d'avance caisse d'avance dafay li li muy wund mooy day dox pour faj ay soxla yu il ay soxla yu néew yoo xam ne réyul soxlawul yenn autorisation pour ñu mën koo def te caisse d'avance amul doxul pour di sax abadan te nit boo ko signé contrat à durée indéterminée yaa ngi ko naan da nga sax abadan ba keroog retraite fekk la fi caisse d'avance Bob ñuy type pour fay ñooñu doxul woon loolu ñu wëlbati ko jëmale ko fofu ba tay ji caisse d'avance bobu mi ngi tollu ci 818 millions ñu jël 298 personnes yo xamni 2023 biñu leen rek 1 milliard 052 millions lañ leen fay 1 milliard 052 millions moy technique dépassé na caisse d'avance bi li ci top di 234 millions dañu duggal sen loxo ci benen fonds typique ko fofu pour fay ñenen ben information donc lool moy technique. depp nañ fonds ba noppi campaat ci benen fonds ñettel bi moy contrat de travail yoy may wax si bëggee mu baax da koy entre privé koy à l'inspection du travail pour mu def ci visa Nous avons bi contrat pendant 12 ans ou plus inspection du travail donne le visa au contrat yi mais si ñu ko fait ba at ba gouvernement bëgg daanu dañoo taxaw ne lii ñu ko signé ci mu concerne 44 contrats waaw léegi 44 contrats yoo xam na inspection du travail inspection du travail nee pas. du Nous ko visé lan signer tax xam na ni ki ko signé waru koo signé xam fonds ñu jël mu ne du ko viser léegi kan moo nangu jël xaalis état di ko digal ci contrat boo xam ne bii ka ko war a viser nee na contrat bi du ma ko signé mooy maanaam wérul léegi man ministre su ma autorisé ñu fay leen bu subaa bu ñu ma woowee ci kanam yoon ne ma ministre bi amul droit signé xaalis bi jëmul woon foofu lu tax nga yóbbu ko fa lan laay tontu est-ce que bëgg sàmm poosu jàmbur wala dépense jàmbur war na tax muy defar sama bopp dugal lu mu yóbbu kaso ci anam boo xam ne wérul ko def duñ ko def.

moy tok di statuer di wax ni nii lañ soxla nii lañ leen di fayee ñom ñep ñoo ciy bokk yam léegi li ñu war def moy ñun audit set ñi nga xamni bi sen présence ci ministère bi amna solo pour ministère bi ma wax ko pour ñi ci dess képp ko xamni ki audit bi dina révéler ni yow amul njariñ ci biir ministère bi dinañ tàqali kook yow pour mu leer nañ benen bi moy même 2023 bi malgré que dindi nañ 44 pour les 254 restants salaire yi ñu leen fay octobre novembre décembre ministère amatu ko dama mujj bind lettre ministère des finances ne ko yokal ñu 200 millions ngir ñu mëna fay 254 yi fi des mais est ce que lolu dëgg la donc on nous met dans des conditions yo xam ne dépassé nañ fonds bi pour ñoo nga respecter rek sax li nga xam wërul ci yoon da ngay mujj génn ministère bi dem di saraxuwaat ministère des finances pour ne ko dimbali ma amaguñu autorisation yi. le ministère parce que ñep xam nañ li xew Sénégal mom lay wax légui di wax ni li fi nekkoon baale impôt dindi impôt indi ay contrat yo xamanteni contrat yi fi xewon muy 2019 ba 2024 44 contrats liñ fi signé ci luy l'État du Sénégal mais 44 contrats yoyu bo xayto limu indi ci Sénégal wara fay ci ay milliards 5900 milliards mais sur ces 44 contrats 38 contrats yi man ak yow la manam contrat yo xamanteni defuñu appel d'offres

ba nga xamni ki mo yor ndeg yi gën liggéey bi nga bëgg ki moko mëna def ñu ñu jox ko ko mu def ko mané 5400 cinq mille quatre cent milliards lañ def ci entente directe voilà ce que les gens ont trouvé ici ay nit taxaw naan loolu du dëgg ay nit taxaw naan chiffre yi baaxul ku ko wax indil preuve ñun bañu ko on accepte la contradiction ñun bañuñu dàggasante ci dëgg warante ci dëgg bu ñu paree dañuy ànd ndox ndax Sénégal ñoko mom moom bu ñu dàkkowee ci chiffre yi bis bu ñu ci chiffre Wana wax ko légui Ousmane Sonko 2018 le Bindon FMI li le ministre des finances bindal du que du yoon ko ci deug waxul deug Amadou Ba mo fi dafa chiffres ñu wéddi won ko tay gis nañ ko mo waral né dafa notu Sénégal mais il la parce que sénégalais yi yor nguur nga nan leen ñun Sénégal gi dañu bëgg mu jëm Sénégal mais nga taxaw ak ñom premier étage dama bëgg ñu étage mais nga xol ba xol xamni fi nga taxaw ni du premier étage mais quatrième sous-sol la mais do la wax ne leen quatrième sous-sol lañ taxaw da nga naan len ñi ngi quatrième sous-sol nañ ànd yéeg soixante quinze marches soo ko toll premier étage soo ko tabax li bëgg tabax c'est ça la vérité ken du tabax dekk ci naxanté ken du tabax dekk ci wax safanu deug ken du tabax dekk ci neub la vérité aux citoyens li wax nak moy Sénégal yépp nañ xamni nous sommes tous engagés nous avons des efforts à faire et volonté ou état du Sénégal moy ñun ñëpp ñu bokk def ces efforts là pour lan pour indi Sénégal souverain un Sénégal juste juste nak moy waxante deug, defandoo deug, djubal def ndekki deug. Quoi ci yoon nak? man sama yoon nekku ci président Ousmane Sonko yoonam nekku ci euh, président de la République yoonam nekku ci Dama nga wax ak yoon bo indi say firnde ba tax ñu mën la bàyyi nga delu sa kër nga delu sa kër bu fekké ni li ngay wax indi wul ay firnde yu tax nga mëna mom sa bop. nga dem teddi comme ñun ñun ñeneen ñi tëddewoon ñun dañu teddi won té ñeme mënañ ko salaamaaleykum wa rahmatullah